dafa mel ni am na beneen mandataire buy ñëw euh, su ko defee dañu mu dem rek euh, xaarandi ko pour. Euh, mandataire Malick Gakou la bu ko defee dañ koy teew. <laughs> dama wàññi la dëgg. d' accord euh, gis ngeen noonu euh, daanaka en équipe lañ nekk di concerté wu euh, mandataire Malick am mbir yi gaaw na depuis bu mu duggee ak léegi c' est très rapide est ce que validé nañu candidature am waaw wala déet dinañ ko xam léegi léegi ndaxte ñoom ñoo taxaw noonu rek di concerté wu seen biir daanaka nañ leen xaarandi ba xam nañ leen xaarandi.

Euh, euh, nit ñi. voilà mi ngi noonu. mooy euh, xam exactement ana lan la ñu jëlee fi nga xamante ni moom moo ci biir conseil constitutionnel gis ngeen noonu ay dara mi ngi noonu en tout cas jamono ji ñoom ñu ngi concerté wu laata ñuy ñëw fii janoo ak ñi nga xam ne ñoom ñooy taskatu xibaar yi voilà mi ngi noonu euh, mën nañ ne que deuxième tour dañu war a régulariser euh, kon am na ci ya nga xamante ni nii voilà mi ngi noonu trois mille euh, et quelque la walla régulariser ñu di rek ndax dina ñëw taxaw janoo ak ñi nga xam ne ñoom ñooy taskatu xibaar yi mu mel ni maman gis nga ne que ñu ngi noonu di taxaw mm-hmm. di concerté wu waaye tamit gis nga ne que Euh, le maire de Guédiawaye Ahmed Aïdara gis nga ko mi ngi noonu mu mel ni que euh, dañuy concerté wu laata ñuy ñëw jaxat janoo ak ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy euh, taskatu xibaar yi ñu xaarandi rek. Fatima comme ni nga ko waxee ba tey ñu ngi fii ci buntu conseil constitutionnel Malick Gakou nag la ñu doon càmbar ay dossier mais dafa mel ni actuellement jot nañu information que ni deuxième tour la jàll. deuxième tour yi nag dafa mel ni tey nag commencé na takkarnaase yéen a koy sentir bu baax a baax. mennum euh, Karim Wade mhm. euh, moo jàllagum ak euh, gis nañ Habib Sy aussi mhm. niki noonu ñu xaarandi rek moom mandataire Malick Gakou ànd aussi ak le maire de Guédiawaye Ahmed Aïdara ana yan kàddu la ñu fas yéene yëkkati en tout cas ñu ngi concerté wu ñu ngi concerté wu autant pour moi di xool ana yéen xibaar la ñuy jox taskatu xibaar yi ak lan la ñuy teg ci seeni loxo mm. waaye bu ñu fàttalikoo tamit ndiki ci suba jot nañu Mouhamed Boun Abdallah Dionne moom tamit dafa mel ni euh, li matt Malick Gakou moom moo ko xuri Marthe moom moo ko xuri euh, gis nañ ne que depuis ce matin mhm. euh, wax naa la ko sànq deux candidats la ñu gis euh, ñu ñu ñu ñu daal di validé li nga xam ne moom moo di seen ay pare bi ci njëkk di Karim Wade nee naa la liste wala premier groupe bi nga xam ne ñoom lañu ñu à partir de neuf heures demi mais nu Karim Meïssa Wade moom la ñu daal di validé deuxième groupe bi aussi gis nañ nekk que ñu ci bari deuxième tour la ñu dem wala sax ñu daal di leen di gàntal gis nañ ne que aussi kenn dong la ci validé le mois de Abib Sy. kon ñu xaarandi rek. Euh, te te te bi nga xamante ni mandataire euh, Habib Sy génn na moom tamit la mu xamle moom moo di ñoom euh, lépp loo xamante ni ñu ngi koy def pour candidature Ousmane Sonko moom moo waral ñu koy def ndaxte ñoom Ousmane Sonko moom mooy seen candidat tey alors moom mooy seen candidat ëllëg te bu fekkente ni validé nañu la candidature de Ousmane Sonko alors ñoom tamit pare nañu pour retirer seen candidature bu ñu delloo gannaaw tuuti ca jour bu njëkk ba nga xamante ni ci lañ doon def contrôle de parrainage ñëwoon di ñëw. bien sûr euh, ñu xaarandi rek ñu ñëw euh, jano uh-huh. ak euh, nga xam ne ñoom ñooy taskatu xibaar yi. pour expliquer ah, rek. ñu xaar leen rek voilà ñu. parce que dafa ñu dëkkee ñu suñu def. bàyyi yéen si jàmm. nañu ba commencé. présenté wul. salaamaaleykum donc man maay docteur Bérouba Cissé. mandataire du président El Hadj Malick Gakou coalition Gakou 2024 ñu ngi sant yàlla gannaaw bi ñu duggee fii ba génn euh, nekkoon ci cinquante troisième position di bu xaw a sori donc tey mën nañu wax ne validé nañ région yëpp yi nga xam ne mooy neuf régions sur les douze yu déposé woon alors am na xam ne war nañ koo complété loo xam ne mi ngi tourné autour de trois mille quatre cent parrains yoo xam ne war nañ ko mottali euh, pour am le minimum alors li ñu validé nag toll na ci quarante mille sept cent et quelques parrains aujourd'hui mi ngi sant yàlla doublon yi nag doublon yi mi ngi toll ci euh, dix-huit mille interne ou externe juri mille externe amuñu doublon interne on a zéro doublon interne alors donc euh, on a dix huit mille yoo xam ne buñ ko joxee trois mille rek lañ si jël mu mat donc dañuy joxe dix huit mille pour am trois mille alors donc loolu mooy situation bi donc ñi ngi sant ñëpp ñi nga xam ne ñoo liggéey ci parrainage bi ci kaw ak ci suuf ci biti Euh, di sant yàlla ba ñu amee résultat bu mel nii ci position bi ñu am. alors je suis le docteur Bérouba Guissé je suis le mandataire du président El Hadj Malick alors euh, nous rendons grâce à Dieu d'être sorti euh, serein de cette étape de parrainage où nous avons pu valider quarante mille sept cent parrains la position de cinquante troisième je pense que c'est c'est un exploit maintenant il nous reste à compléter euh, trois euh, mille et quelques mille quatre cent et quelques sur les dix-huit mille doublons externes que nous avons nous zéro doublon interne donc euh, nous avons bien travaillé et nous remercions l'ensemble des responsables des militants qui ont travaillé depuis plus de euh, six mois sur ce parrainage et nous, les, nous donnons rendez-vous, Inch'Allah, pour compléter les trois ministères. merci beaucoup jërëjëf. mu nekk docteur mbokk euh, euh, bu baax a baax a baax mu nekkoon mandataire Malick Gakou. waaye euh, la mu euh, xam ne moom it euh, bokk na ca ñoom li nga xamante ni moom fa la ñu toll toll na ci 40 000 parents yoo xamante ni ñoom daal nañu koy valider maanaam. daal dinañu koy am donc la leen dese euh, bareetul daanaka matul sax 4000 yoo xamante ni war nañu ko daal di wute waaye mën nañu jàpp daal confiance la ñu nemmeeku ci seen xar kanam ay dara euh, mi ngi noonu topp ca euh, délégation ba waaye la ñu ca gis daal mooy dañuy takkuwaat ba dëgër ñoom daal di jéem a xool ana nan la ñuy liggéeyee waat effectivement moom euh, Malick Gakou kon xam naa ni euh, ñoom ñu euh, delluwaat rek wuti li nga xam